noo ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool mbakke téwér rakkam ju baax ji jëwriñam ji soppeem bii sëriñ Sidi Mbakke mu Cheikh Abdoulaye Lahat yàlla na fi yàgg téwér noo ngi kër noo ngi fii nag ci kër Cheikh Abdoulaye Lahat kenn du ko fàtte dañ leen koy fàttali bisu sunu jàmbaar ji ñëw na ki liggéeyal yàlla liggéeyal rasulillahi waaye liggéeyal sëriñ Touba. doy na rek ci jëfi Cheikh Abdoulaye Lahad kër mag moom doy na bat ni tukki ku doon xalifam sëñ Bamba sa kër wuuf jumaa ji yàlla ak Cheikh Abdoulaye Lahad waaye daal di baax di baax baax ndeke dem bàyyi ku baax moo gën boo fi bàyyee ku baax loo fi bàyyi du rapp du raaf du réer sëriñ sii di noo ngi ñaan nga yàgg lool te wér te yàlla na la yàlla may ngërëmal sëriñ Touba nu bis bii nag mooy bis Cheikh Abdoulaye ñu di leen ko fàttali talaata la tombeeg ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor weer weeru koor wi nu nekk le 24 boobu nag ci la ñu woote màggalu Cheikh Abdoul Ahad jàmbaar ji jot ndigal ca magam ja Cheikh mun Muntaxa mu jox ko ko mu dajale bokk yi gis ngeen appel bi ni mu mel ku ko xool xam ni rakkam yi ak njaboot gi ak cheikh yi ak turandoo yi ñoom ñëpp sëriñ si di woo na leen ñoom ñëpp ñu ngi nii toog jàkkaarloo ak moom bis boobu nag. ñu di ko yëgal président de la république président Macky Sall moom itam ñu ngi ko yëgal bis bi waaye bala may sori damay jox kaddu gi sañ am Amsatu moom Cheikh Abdoulaye Lahat ñu jox ko kaddu gi bu ko defee nun ñëpp ñu àndandoo déglu ko. turu sëñ Mountakha Khalifa Sall di murit ak ñëpp sëñ Sidi <laughs> bokk jullit yëpp ñu nuyu bokk taalib yëpp. di leen fàttali bis boo xam ne nag kenn fàttewu ko muy kaju sawal xaama bal sasin 23 sawal ci 1332 at mi nga xam ne ci la Sëriñ Abdou Lahad feeñe muy atum cant di atum fàttaliku di atum bernde ndax sëriñ bi ci boppam moo ci jëkk def alalam ni am naa ci moom yaakaar wax ne ku mënu turam itam doo lakk kon nag ñu yoo bokki tali bi ci bis boobu di bisu Sëriñ Abdou Lahad di bisu jullit yëpp di bisu murit yëpp ndax si ñëpp da koo seqaloon nag ñëpp lebal ñëpp teraanga bisam nag di ko mënoon teraanga ci alxuraan ak ci xasida ndax ku ne xam na ni ab yëngoom yëpp ci alxuraan la ak xasida ak bernde ba bi mu wàccee liggéey alxuraan ak xasida ñoo ko wékk kon ñu ci woo képp kuy jàngalekat alxuraan képp ku mën alxuraan ak képp ko mën xasida sëñ Abdou Lahad seenub cëre liggéey na ci xasida loo xam ne kenn liggéeyu ko ci moo day la alxuraan ji bindkat yu mag yi ak xasida yi ba noppi tëdd fa bisam ñëwee nag ñu koy yëgal ñooñu di ko yëgal itam fu mu dawaayir nekk ci réew mi ak ci bitim réew ndax bu daayira amee bu seexul xadim ci Sëñ Abdou Lahad la doore moo ni moo wutal yoon yu bit si kon daayira yëpp ñu ngi leen ko yëgal fu ko Sëñ Tuubaa ne yëpp ñu ko yëgal ndax bu ko Sëñ Tuubaa saaro ci moo moo ci moom la sama bopp moo defaroon kër Sëñ Tuubaa yi ngir bëgg bu njaboot ak Sëñ demee foofa dal fa bu fa bu ñu fa nekk ak taalibe yi daañu jom def naka sul noonu taalibe ko di gis taalibe itam daañu def lu naka sul noonu sëriñ bi di ko gis loolu rek doy na liggéey doy na cant sëñ si nag di sant sëñ Abdou Lahad ci li mu ko defal woo ci taalibe yëpp ak bokk yëpp ak julli yëpp ndax sëñ Abdou Lahad ñëpp la defal ñuy wooye itam ñu nekk bitim réew fu ñu fi mën a nekk ndax dawaay yaa nga foofu bitim réew bari fa bi ba gadee këri sëñ Tuubaa yi nga fa bari fa liggéey kon nag luñu mën a jàng ci mën a jàng ci lépp nañu ko def ngir addi def ko addi addi addi addi sëñ Cheikh Abdou Lahad di sant nag boole di wooy di ko yëgalee mboolem bokki sëñ Tuubaa ñu bokkal sëñ Tuubaa kër yëpp ak seex sëñ Tuubaa ak képp ku am ku yor defaru sëñ Tuubaa rek ñu ngi la yëgal bis bi sëñ Abdu Lahat dañ koy fay borom ndax dañoo lebal teraanga jox mënuñu koo fay bor boo mën a loo am nga ko ci tàbbal sëñ Abdu Lahat lebale julli yëpp teraanga lebal na tali yëpp teraanga bisam boobu nag ñu ngi leen di woo yéen ñëpp ci lu koy defar ci wax ak ci jëf lu koy jagal ñu ngi leen ci yor ñu ngi leen ko yëgal bis bu sëñ jagal na ba noppi waaye nag ngir suñu mbir jag nag foog ñu def ci suñu alal foog ñu def su su suñu ñàkk foog ñu def ci suñu jàng alxuraan suñu xasee barkeelu ko ci bis bi kon sëñ si dañ koy yëgal ñëpp di ci woo ñëpp ku ci ñëw ku ne yàlla faj sa sa aajo ci barke Sëñ Abdou Lahad sëñ si ñi ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool suñu borom defal la gudd fan ak ak wér ak mucc ak yokk jëriñ ci barke Sëñ Abdou Lahad wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu man xam naa ni damay sof rek wax ji jànn la damay sof rek eggale ndax sëñ am sa wax na lépp xanaa ci gën a feddile rek ci turu sëñ bi ci fàttali bis boobu ñu wax sëñ Abdou Lahad nag buñ ko waxee fàttaliku mooy fàttaliku lislaam ndax dafa ne waxoon fii ne man Abdou Lahad fii ma fii nekk sëñ Tuubaa nee rek laa di wax duma leen wax Abdou nee na kon kooku te sëñ Tuubaa léppam lislaam la kon fàttaliku mooy fàttaliku lislaam fàttaliku mooy fàttaliku jom ndax léppam jom la fàttaliku mooy fàttaliku liggéey fàttaliku mooy fàttaliku lépp loo xam ne lu yiw la ak bu baax kon bisam fàttaliku dëgg la fàttaliku ci eh, ci ci melokaan yooyu ak loolu mooy yaa dikkal ndax da doon sàmm rek tool bi da wax man sàmm laaj kon tool bee mu doon sàmm nag eh, muy valeur yooyu mu ñu bëggaloon dañu bàyyi ko xel bu baax ci fàttaliku ko ndax fii jamono ji toll day leeral ci ay mbirum lu bari lu lu mu doon wane te loolu mu doon wane lépp lu sëñ Tuubaa waxoon na rek wala mu bind ko wala mag ñi fekke ko wax ko wala mu dund ko ndax waxoon na day sëñ Tuubaa nee na jamono ngi ñëw yoo xam ne ku ci sa lislaam mooy ak taalibe rek na nga ko denc ci sa roog seen te ko la ne ngaal nga bañ kon loolu ñu ngi koy dund fii ñu toll ndax lislaam ñu ngi koy attaqué ci boor yëpp te sëñ Tuubaa léppam lislaam la kon fàttali ko ci ci jikko yooyu ak melokaan yooyu tamit lu am solo la ko dajale nii da leen berneel nag waaye nag la la naar bi waxoon sëñ Tuubaa rek ni ko isa taafa bi baabikum xasaaniyun faalam bi na annahu amma si wallahi xaanihum ñun ñu waa xasaan yi bu ñëwee ci yow rek xamal ni yàlla rek lañ fi gës loolu yàlla rek xëñtuñ ko dañ fay gës yàlla mu ñuy fi xëy di ko fi gës kon ku nekk ak la la indi kon sëñ ab Lahad daal mu ngoogu ku jiitu woon jamonoom la te lam ñu doon waxaan lépp lépp lu lu jiwéne suñu mbir tey la ak ëllëg kon mu ngoogu sëñ mi nag dafa daf ma wax léegi ni ma comme ni ko sëñ am satu waxee léegi maanaam alxuraan ji ak xasiide yi ñu bàyyi ko xel bu baax ci bis bi ndax sëñ Abdou Lahad day da doon dàkk sëñ Tuubaa ci bëggam ca alxuraan dàkk sëñ Tuubaa ci bëggam ci yi ba tax na loolee mu boole woon ko ci ab ci tool bi mu doon liggéey mu boole woon ci loolee ndax sëñ bi ko da wax ne kansil kitaabu wala xadis wala adab la jamu fiddatin wala jamu sahab moo ko waxoon bind ko sëñ Ablaay nag feddli na ko kon sëñ bi nee mi ngi digal njaboot gi ñu koy saytu di ko màggal foofu waaye mën a nekk na ko màgg na ko fanaan ba bët set moo ma ko wax léegi ñu dundale ko noonu maanaam dàkke ko ak bëggam dàkkal ko ak bëggam ne mu dàkkaloon ak bëggam sëñ Tuubaa kon mu ngoogu yéene ngoogu bis baa ngoogu sëñ Abdoulaye ku liggéey sëñ Tuubaa taalib yi ñoo lay fay ñoo lay njukkal xam ngeen seen yëfa ngoog ah, sëñ bi nag sàmm dong la ci ma ngay ma ngay dàkkal sëñ bi bëggoon kon boobu mu ngoogu jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa ñuy jox kàddu gi sëriñ Abdoulaye Jaxate ci turu turandoo yëpp. bokk jullit yi ñoo leen di nuyu di leen ziyaara bu baax ci turu sa sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko fa sunu borom bàyyi lu yàgg loolu te ànd ko wér. Hmm? maa ngi leen di nuyu ci turu turandoo Cheikh Abdoul Ahad Mbacke yëpp sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Souhaïbou sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Moustapha Bassirou di leen ñaan li ñaan li ñaanal sëriñ Sidi Mbacke mi mu yàgg ak wér. di leen nuyu ci turu dong yëpp itam nun dong yi ak nun turandoo yi ñu xam ne bis bii ñu mal di bisu Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñi ko Serigne Hamsatou waxee léegi Serigne Touba ca boppam moo ko njëkk a màggal kon nag loolee mu defoon moom la Serigne Sidi Mbacké mii di roy ndax moom Serigne Touba rek ko ñor kon nag nun turandoo yi nañu xam ne bis bi ñoo war a tàmbali ba ñoo war nekk ci digg bi ñoo war a nekk ca mujj ndoo nga yit kasaalika ndax sëriñ bi defal nañu loo xam ne moo nu xamal kan mooy Sëriñ Touba ba ñu mën jariñu ci moom te lii fi sëriñ Xamsatu wax léegi nga xam ne Abdul Ahad boo ko xasee tudd rek euh, seeram araam na sawara waxuma la Abdul Ahad waaye ku mën turam sax seeram araam na sawara loolu kenn mun a jaamu yàlla jaamu yàlla ko fay kenn mun a liggéey sëñ bi liggéey bi ko fay kon nag lu ñu am nañ ko ci def bu ko suñu alal fekke bu ko suñu euh, ñaq fekke bu suñu xel fekke bu ko suñu dara fekke sëriñ bi nag ni mu ko bëggee sëñ Muudu wax na ko sànq bis bépp nañ ko jeexal ci alquranul karim xasaayid Cheikh Ahmadou Khadim ak bernde njukkale ko Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad ndax loolu rek moo doon ak bëggam kon nag ñu ngi woo bokk jul yëpp fu ñu mën nekk ci kaw suuf bokk taalib bi yëpp fu ñu mën nekk ci kaw suuf ñu màggal ko ji tax si mu xoo bi sunnati jooji Serigne Touba waxoon ci guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam sëñ Saliou Mbaax mi daa waxoon ne guddi gi yonente bi day yamale ko guddi ga ko jëkk wala ko jiitu dara jaru ko ci ab julit waaye loolu la ñuy waxee yamale ko bisam bis ba ko jiitu ak bis ba ko jiitu dara jaru ko ci ab julit rawat naa ko ab murit ndax liggéeyal na jullit yëpp liggéeyal na réew mi liggéeyal na murid kon nun ñoo ko war a delloo njukkal kon nag ci turu donga yëpp ci turu turandoo yëpp li ko tàmbalee bis ni ki tey alxuraan ji nañ ko tàmbalee ñu ngi woo raabitatu madaaris xuraaniya muy kuréel gi lëkkale daara alxuraan yi tàmbalee ko sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Habibu ak sëriñ Basiru moom sëriñ Fallu ak sëriñ Xaadi Jaxate mi nga xam ne moo jiite Touba kon fu mboolem daara alxuraan nekk am nga ndigal tey nga tàmbali kaamil yi ak xasaayid yi ba bis ba lépp luñ ci am ci ab lim itam buñ ko mën a jotal ñu jotal ko su bis baa itam ñu ñëw si kër gi ànd ak sëñ Abdou Lahad Jaxate ñoom ñi nga xam ne ñoo yore woon kaamil yi ñu dundal ko ci alxuraan ak xasida du takk ba ba ba ba ba njulli fajar am na ay kuréel daayira yoo xam ne taxaw nañ tem fas yéene ànd ak noonu ci loolu waa commission culturelle ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ñoom itam fas yéene lépp lu tax ñu mën a jariñu sëñ Abdou Lahad danañ ko fàttali doomu aadama dañ fàttali julli ñi kon loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp maa ngi tuub di jégg lu baax kàddu gi lépp lu ci dëng nun la waaye eh, ndax xaw ñoo bett waaye ñu ngi jéggulu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom yàlla ci àgg ak muy ñaar fukki fan ñett ci weeru korite ñu ne tolloog talaata ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai wi Cheikh Abdoulaye nag sëñ am sotu wax na leen ko léegi ku munta leb lay war a mën a jéem a fay bar waaye Cheikh Abdoulaye kenn mënu koo fay xanaa réew mi ak diini ji ak biir réew mi ak bitim réew ñëpp àndandoo màggal ko ni ko sëñ si di bëgge te ñëpp ñëw Tuubaa ndax sëñ Abdoulaye jar na ko rawatina muy presse bii fu ni presse gëndoo léegi ak ni muy yaatoo télévision yi lépp su amee yàlla kàddu Cheikh Abdoul Ahad ga rek moo tax mu moo tax mu sotti moom mooy que Cheikh Abdou Khadir Mbacké seeroon ni nit ku ne mënees na koo denc ci jëfam ni alxuraan jëfama ñu denc ko ba noppi mun Cheikh Abdoul Ahad dëkk naag alxuraan faw bis bàngoo ngoog le 24 mai la di bisub talaata di le 24 tombeek ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor wi nu ne bàyyiwuñu kenn. bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn na ñëpp ñëw bisu Cheikh Abdou Lahad ku ci feeñ ci lu baax te màggal ko na ko Sëriñ Tuubaa bëggee woon dootoo nëbbu yaa xayu yaa xayu musalli bi salaam ala lasi jaa bi ahsanil kalaam ala lasi jaa bi ahsanil kalaam salli wa sallim wal taqabal sal kalaam mun naa la xaarisil uroofi bi maa yafuuxu sann min maaruufi